ramadaana ngi gan teer si leen ko teral weeru alquraan ku ci def lu baax dañ la fulal dañ la fulal alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala man la nabiyya ba'da assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen baal àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala defal ñu dégg ak topp di wax ni nag tey mooy suñu dernier dars incha allahu ci weeru koor bi ci jigéen ak weeru koor di wax euh, mbas mi yàlla wàcc suñu réew yàlla na ko yàlla saafara képp koo xam ne dal na la yàlla yàlla saafara képp koo xam ne dalu la yàlla na la ump képp ku ci faatu yàlla na la yàlla yërëm di wax allahuma inna naudu bika min albarasi wal jununi wal juzaami wa min sayyi il asqaam mbokk yi dañuy sant yàlla tey bu baax a baax a baax ndax commencé mu yegg yàlla rek moo ko mën wax bu egg yàlla rek moo ko mën subhanahu wa taala mënoon nañoo commencé te duñ ko mën a eggale wala ñu dem ba ci digg ba am gàllankoor mais sant ñi ngi sant yàlla di ko wax allahuma laka alhamdu xata tarda walaka alhamdu iza radit walaka alhamdu bada rida allahuma laka alhamdu hamdan kathiran tayiban mubarakan fii ngi sant yàlla bu baax a baax di wax alhamdulilahi alladi bi nicmatihi tatimu salihat ñi ngi sant yàlla ci lim ñu may ñi ngi koy sant bi ko gërëm di ko bàkk di ko kañ ndax lii séentu wuñ ko woon yaakaaruñ ko woon kon bu ñu ko yàlla mayee ba ñu egsi ca pàndaw li ñu ngi koy sant cant goo xam ne am na commencement waaye amul fu mu yem di wax ni tey nag suñu dar suñu dernier dars dars ñu ngi koy def ci baalonte ak jéggalonte mbokk yi xam ngeen ni jullit jullit mooy mbokkam kon képp ku nekk si li nga bëggal sa bopp danga ko war a bëggal sa mbokkum jullit li nga bañal sa bopp danga ko war a bañal sa mbokkum jullit amul sikk moos ne kenn ku nekk si ñun am nga ay bàkkaar am nga ay rëcc-rëcc am nga ay tooñ yoo tooñ sa bopp wala nga tooñ ko sa moroom wala nga tooñ ko sa boroom te tooñ yooyu day kenn si ñun bëggul ñëw yowmal xiyaam fekk ko fa ñu di la ko xisaab wala ñu di la ko laaj te xam ngeen ni yàlla bu ñu ko tooñee bu ñu ko jéggaloo mu jéggal ñu waaye bu ñu tooñee suñu moroom il faut mu jéggal ñu ñu door a nekk ñoo xam ne dañuy set ci bàkkaar boobu buñ ko defulee rek ëllëg yowmal xiyaam dina nekk gàllankoor suñu diggante ñu toog di régler suñuy compte yi nga xam ne moom lañu amalante woon fii ci àdduna tooñ yeeg ñoom seen kon nag euh, kenn ku nekk na jàpp ne keroog yowmal xiyaam dina soxla njéggal kon nañu jéggalante fii balaa ñuy dem yowmal xiyaam mbokk jullit yi bi munaasabati hadal eid si feet bii ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala di ko jéggalu suñuy bàkkaar di jéggalul mbooleem jullit bu góor ak bu jigéen ay bàkkaaram waaye di jéggalu mbooleem doomu aadama yi ñuy jëflanteel maa ngi koy commencé ci sama bopp képp koo xam ni mas naa la ameel àq wala ma tooñ la te yëg ma yëg ko wala ma ñàkk koo yëg man jaam bu xeebu bii maa ngi lay wax baal ma àq baal naa la baal naa képp ku ma tooñ li sama rakk ja daan wax Zeynab yàlla na ko yàlla yërëm ba bi muy waaj a faatu sax doon na ko wax fan avant muy faatu fan yooyu mu ne képp koo xam ne daw tooñ na ma baal naa ko parce que bëgguma dem ba yombal am toog wala yàlla di régler ñaan zéna kii amee na lool na la àq wala yow nangam ak nangam mu ne moo tax képp ku ma tooñ rek man baal naa la ndax bëgguma loolu nekk suñu gàllankoor kon mbokk yi maa ngi ñaan képp koo xam ni amoon nga loo dencal doomu aadama bi muy mer muy tooñ bu mu la tooñoon muy àq bu mu la amee lool nga jéggal ko te yàlla tax te bu ñu jéggalantee fii de yàlla subhaanahu wa taala mën nañu jéggal bu kenn si ñun ëmbal moroomam ab iñaan wala mer ba yóbbaale ko yowmal am yàlla nañ ci yàlla musal képp koo xam ne danga tongoo woon ñu ngi lay ñaan te yàlla rek tax nga baal ki nga tongooloon àq te ngeen juboo te yàlla rek tax képp koo xam ne danga mere woon nit nga baal ko te yàlla tax yàlla dafa bëgg nit ñi nga xam ne dañuy wan seeni mer wax na ko ci alquran wal kaazimiina al gayda wal aafiina an innaas wallahu yuhibbul muhsinin yàlla mu ne moom day bëgg na ñi nga xamante ne nii <clears throat> dañuy wan seen mer dañuy jéggal doomu aadama yi yàlla dafa bëgg kuy rafetal kon ki la tooñoon boo ko jéggalee sax soo amee loo ko may nga may ko ko ndax mu nekk rafetal mbokk yi xam ngeen ne yàlla moom def ne sax bu la nit tooñee mën ngaa fayu de mu ne waaye wala man wala wala in sabartum la huwa xayrun lis sabirin mu ne waaye boo muñoon de bañ a fayu te jéggale mu ne loolu de moo gën ñeel nga xam ñooy way muñkat yi mu waxaat wali man sabara wa gafara inna dalika la min ki nga xamante ni dafay muñ ba pare jéggale dañ lay tooñ nga muñ tooñ ba ba pare jéggale mu ne loolu day bokk na ci mbir yu màgg yi ku baax rek moo ko mën ñi tooñ la nga muñ tooñ ba ba surtout nag nga mën a fay fayu nga mun tooñ ba ba pare jéggal la tooñ loolu jàmbaar dëgg moo ko mën kon nañu jéggalante te yàlla tax moo xam wujj yi nekk ci biir kër yi la moo xam papa ak yaay wala yaay ak doom moo xam liggéeyukaay ba ña fay liggéey moo xam jànq bi nekk ci kër gi ak ay patron moo xam say mbokki bopp wala say dëkkandoo képp koo xam ne amee la na sa moroom àq na ko jéggal te yàlla tax ndax yàlla nee na kat wa in taafu wa tasfahu wa taxfiru fa inna allaha gafurun rahim mu ne su ngeen jéggalee su ngeen baalee su ngeen jéggalee euh, bàyyi lépp mu ne man yàlla day ku bëri yërmande laa te ku mën a jéggale laa ku mën a jéggale laa te ku bëri yërmande laa kon mbokk jullit yi képp koo xam ne yaa ngi jéggale rek na la leer ne yàlla daf lay jéggal ndax yàlla moom dafa bëgg ñuy jéggalante ci suñu biir moo tax kuy jéggale rek yàlla moom daf lay jéggal bañ na ko fa sax daf naan yërëm leen doomu aadama yi man yàlla ma mën leen a yërëm irhamu turhamu waxfiru yaxfir allahu akbar mu ne yërëm leen yërëm leen ñi nga xam ne mën ngeen leen a fayu wala ngeen ameel leen àq ci seen xol su ko defee man yàlla ma dinañ leen yërëm mu ne waaye jéggale leen man yàlla ma jéggal leen kon nañu jéggale nañu yërëmaate nañu jéllale xoolal abou bacrin sadiq radiallahu anhu ba ñu tuumaalee Aïcha ki ko tuumaal mi ngi nekkoon ci biir kër abu Aboubacar Aboubacar di ko dundal bi nga xamante ni tuuma gi feeñ na Aboubacar dafa mer ne kii dootuma ko dundal si la yàlla wàcc alquran ne walaa yatali ulul fadli minkum wasaa ay tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal yaafu wal yasfahu alaa tuhibuuna ay yaxfir allahu lakum wallahu gafurun yàlla mu ne ñi nga xamante ni dañoo am xam nga Aboubacar moo ko daan dundal mu ne ñi nga xam ne dañoo am wërsëg am lu yaatu mu ne ñooñu day <clears throat> bu ñu bañ dundal seen i jegeñaale ak miskin yi ak muhaajirin yi mu fi si yoonu yàlla mu ne waaye nañ jéggale nañu baale xanaa bëggu leen yàlla jéggal leen yàlla day ku mun a jéggale la ku mun a baale la bi Aboubacar déggee loolu rek dafa ni wallahi inni uhibbu an yaxfirallahu lii wallahi giñ naa ci yàlla ne man de bëgg naa yàlla jéggal ma ci la jéggalee waa ji ci la jéggalee waa ji continuer di ko dundal comme ni mu ko daan dundale kon mbokki jullit nañu xam ni kat ay jullit duñu jàppalante een duñu meroo duñu bañante dañoo war a nekk ñu bëggante te xam ngeen ni kat bokk na si ñaar ñi nga xamante ne nii seenu julli seenu woor seenu def lu baax kenn du ko nangu mooy ñi nga xamante ne nii dañoo tongoo ay jullit yoo xamante ni ay jullit lañ di surtout nag ñun jigéen ñi yu ñàkk fayda jotale leen jotale leen ba tongoo du ngeen nuyoonte du ngeen waxante ay nit bu ñuy ànd il faut am ku tane moroom bi te xam ngeen ni ak jullit ak moroomam bu ñu war malee ni ñu war a mel bu ñu rombante dañoo war a nuyoonte saafoonte surtout nag ci fani feet gii kon képp koo xam ne ameloon nga sa moroom àq ñu ngi lay ñaan nga jéggal ko te yàlla tax ku jéggale yàlla la yàlla jéggal képp koo xam ne jéggale nga rek yàlla na la yàlla jéggal fa man afaa wa aslaha fa ajruhu yàlla mu ne képp koo xam ne dangaa baale ba pare defar baale ba pare defar diggante bu yàqu woon yàlla mu ne kooku de fayam ma nga ca yàlla subhaanahu wa taala kon ku bëgg yàlla jéggal la jéggaleel mbokk yi ngir yàlla nañu jéggale te yàlla tax nañu baalante te yàlla tax kenn ku nekk lépp lu nekkoon ci sa xol ci iñaan ci mbañeel jéem koo dindi ba mu set te xam ne àdduna amul solo ñun ñëpp dañuy dem te képp bu ñu demee foofu yaakaar naa yow ma xiyaa metti metti goo xam ni tàng na tàng goo xam ni bugguñu faa ku nekk naan sama sa moroom li nga ma amee loon ak li nga ma amee loon kon nañ jéggale fii te jéggale jéllale jéggale te rafetal te baale su ko defee bu ñu deewee yàlla mën ñoo jéggal mën ñoo jéllaleel suñu bàkkaar yi ñu doon def ba pare mun ñoo baal loolu yaa yomb na yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañu ko defal mbokk yi maa ngi waxaat ne képp koo xam ne tooñ naa la képp koo xam ne dégg nga loolu naqare ci émission yi ñu doon def donte kon dañ doon jéem a jottali baatu borom bi subhaanahu wa taala ñu ngi lay jéggalu te xam ne jubluwuñu blessé kenn li liñ doon wax rek mooy li yàlla wax in nuridu illal lu baax rek lañu bëggoon ak defar ñi ngi jéggalu ñëpp di wax ñëpp jéggal jéggal nañu ñëpp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala moo may ñu dégg ak topp yàlla may ñu ñu fekkewaat beneen weeru koor te weeru koor bii lépp luñ ci jaamu rek yàlla nañu ko yàlla nangul lépp luñ ci saraxe yàlla nañ ko yàlla nangul lépp ñu ci def si lu baax yàlla nañ ko yàlla nangul mu ngi dem bàyyi ñu fi buy ñëwaat yàlla nañ fi fekk si jàmm ak salaam ñi nga xam ni nag fekke woon nañ ko yàlla nañ ko fekkewaat donte kon lu jafe la ñi nga xamante ni commencé woon nañ te fekkewuñu yàlla na leen yàlla yërëm ñi feebar tamit yàlla na leen yàlla saafara te xam ni seeni yéene egg na yàlla yàlla defal ñëpp jàmm defal ñu ko defal ko mbooleem jullit ñi ngi xalaat ne dina continuer waaye xam naa du nekk chaque jour mais daal lu ci munti xew di ngeen ko yëg incha allah yàlla yàlla defal jàmm di nag sama caméraman bi nga xamante ni mooy sama euh, kii nekk ci machine bi di Cheikh Ismaïl ñu ànd durant weeru koor bi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko tawfiix defal ko nag mboolem waa opération Mur Say Cër defal ko mboolem àdduna bi yëpp mboolem jullit ñëpp tey nag ñi nga xam ne moom lañ tuddee suñu darsi bi mooy soxna Kumba Fay sa soxna Kumba fay bu Wakaam ak doomam Abdoulahi Diouf yaa ñoom lañ tuddee darse bi sam papa Cheikh Fall Sibras sam papa Cheikh Fall Bayub Góor sam papa docteur Cheikh Fall euh, sama bàjjal Faaba Fall sam papa Mor Kan Cissé macha allah sam papa Modou Fall Guro yàlla na ko yàlla yërëm ak njabootam ñeen lañ tuddee darse bi di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa leen ko teral nañ leen ko teral lu baax dañ la koy fulal dañ la ñett mbeek la am booy dog nga beek sooy wori nga beek ëllëg yaw nga